wa man axara salaata ku yéexe julli xataa xaraja waxtuhaa ba waxtu am génn fa alayhi war na ko zambun azimun bakaar bu màgg bu foor illaa an yakoona lu dul su nekkee naasiyan doon ku fàtte moo ko taxa jeexal waxtu muxtaar te julliwul aw naa'iman wala ku doon nelaw kon du am bàkkaar wala ak yeneen su fekkee éefar bu tuubagul woon la moom bi waxtu yu la door a tuub mu daal di julli tey kooku amul bàkkaar wala tusalla déeful julli naafilatun ak naafila baada salaati subhi ci gannaaw jullik suba eh, ila irtifaa'i shamsi ba jant bi di fenk ba yëkkatiku kooku mu door a daganaat diggante bu siboon nañu ko lu dul bi jant bi dee toj di génn foofu lañ ko araamale naka noonu bu dee dugg di sotte pareegul foofu lañ ko araamale yooyu yaari wax foofu dong la julli araame eh, mbaa fi waxtu fa farata bi xate ba xam ne dara xaju fi loo fi def waxtu wi génn wat ci farata ji kooku at beneen def fa lu dul farata gi day daal di araam lii nu wax nag ci sibu julli ci waxtu yooyu mooy mazhabu yenn ulama yi niki Malik amma am na ñoo xam ne ñoom boo demoon penku tey ci xarama yi waxtu wu ne da ngay gis ñu koy julli bu ñu noddee timis nga gis ñuy naafila ba ba ñuy taxawal suñ jullee takkusaan ba noppi nga gis ñu jóg buñ jullee suba ba yegal nga gis ñu jóg di julli <coughs> wa baada salaati al asri gannaaw julli takkusaan ila salaati al maghrib wa baada tuluuci fajri gannaaw bu fajar xaree ilal wirda lu dul naafilay guddi yu borom aada woon a def li naa imin alhu ko nelaw wàcc ko nelaw ba not ko ba jëfun ko ba mu yeewoo eh, nee na fekk fajar dikk du tee mën na fa def wirdam bi ci sartu nag dégg nga bu mu tax julli mbooroo raw ko su ko naree def dem ca julli mbooloo maa naafila ya ñaareel baat na fekkit ah, du tax muxtaarum suba bi jeex wa illaa ko nit mu bakk wa inda juluusi imaamil jumaati ak fa toogu yilimaani ajuma alal mimbari ca mimbar ba pour xutba foofoo kenn du fa tàmbaliyaat ak naafila xanaa yilimaan ju dikoon fekk la ci sa julli naafila ñu ne la àggaleel rek wa baadal jumaati ak gannaaw juma buñ jullee ba salmal ba tey sib nañu fakku fa naafila xataa yaxruja ba muy génn min al masjidi sa jàkka ja loolu luy illaam fuqaaw yi da nee ñu loolu lu doon illaam ci cosaan li allaa yakuna zariatan li icaadati man laa yaraa sixataha illa xalfa imaamin maasuum nee na dafa bokkoon ci bidaay yenn mubtadi ay wax boo wattuwul nag yàlla buy ahlu chia sax ñoo xam ne dañoo siiwal ñoom daal fas ni julli jumaa nag du doon ilimaan ju nekk nga topp ci moom mu wér déedéet fokk day doon maasuum maasuum koo xam ne jomb na ci moom mukk ak mooy yàlla mënu ko dal ni ñu fas ci seen ayimatu chia yi maasuum isma lañ ci fas comme ismatul ambiyaay loolee nag biddaa la moo tax tàng bi nga xamee ni nag dawlatu sunna moo ëpp leen doole ba bu ñu nee ci biir nit ñi duñu nangoo du ñu ñemee feeñ bu baax ci seen pas-pas yooyu ñu ragal ni suñu deede ku julli jumaa ba sëlmal naafil la ñooñu mën nañ ca bàddoo di baamu seen jumaa fekk na dañu ni ilimaan ji du maasum ku topp ci moom sa julli baaxul suñu sëlmalee dellu julliwaat ñu ni loolu moo doon li ñu bëggee rek ku sëlmal jumaa nga dem bu fa kenn di julliwaat ndax ñu bañ cee raxabaaloo bi muqtadaa seen aqida boobu te mooy anna salaata aljumaa la tasixu illa xalfa maasuum wa hum al ambiyaau wa aimmatuhum fi zaamihim yonent yi wala seen imaamu chia yi ci li ñu ko jàppee ñoom xata yaxruja min al masjid fas